تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc bàkkaar ñuy tuub di dellu ci moom subhanahu wa taala moom mi nga xamee ni képp ku mu jubal amul ku la mën a jàddilootu yoon waaye képp ku mu seetaan ci maandu teem ba nga réerit amul kenn ku la mën a jubal yàlla ñu yàlla jubal di seede ne amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ba yàlla suñu borom di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp duñu leen dénk ragal yàlla yàlla ñu koy dénk ci alquranul karim ci ayat bu tedd bi muy wax ni e yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal wal tanzur nafsum ma qaddamat li xad mooy ñuy bàyyi xel nag ci lu ñuy fàggandiku ci li ñuy jëriñ ëllëg yowmal qiyaam mooy ci ay yiw mu ni wattaqullah na ngeen ma ragal inna allaha xabirum bi ma taamaluun da ngeen xam ne lépp lu ngeen di def man yàlla ku ci dañ kumpalaa mbokk yi suñu xutbay tey dañ koy sof ci suñu xutba bi weesu ak wax lenn ci ngëneelu fukki fan yi ñu nekk muy fukki fani tabaski muy achara ayam ci dil xijj mu tàmbale tey jii di benn fan ci weeru tabaski jëm fukkeelu fan ba la ca nekk cay ngëneel incha allah suñu xutbay weesu ñu ngi waxoon ci histoire ibrahima alayhi salaam yàlla nattu yi mu tegoon ci kawam mën nga jóg julli ñaar rakaa natt yi nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala mu ngi ko tegoon ci kawam ñu waxoon ci ba ci gën a tiis nag mooy la mu géntoon yàlla suñu borom wax ko ni ko da nga war rendi sa doom jii di Ismaayil wante la ci am lépp ci ay duruus wala ibar moom la ñuy tënk ci ginnaaw bi nga xamee ni gis nañ ni kii di Ibrahima alayhi salaam nangu na ndogalu borom bi subhanahu wa taala comme ni ko soxnaam si Haajara nangoo woon moom it topp ko ci ndigaleem ci dem ci xur xur bi nga xamante ni mooy xur Màkka wee tey mu dem fa te amul lenn lu mu fa fekk ci lu lu koy wéttali wala lu mu war a dundee waaye mu nangu ndogal borom subhanahu wa taala ci nekkin googu ak it Ibrahim ak Ismaayil it nangu gi nangu woon dégg ndigalu borom wajuram ci nangu li yàlla suñu boroom digal ibrahim mooy mu rendi ko kon dars bu njëkk biñ ci jël mooy imaanan amiqan wa siqatan billahi ajiba mooy pas-pas bu wér bi nga xamante ne ibrahim amoon na ko ak njabootam ci seen borom subhanahu wa taala muy pas-pas bu borom kër bu nekk nag war a am suuxat ko tàggat ci say njaboot ba ñu màggee ko mu bokk ba tey ci duruus wal ibar yi aqibatu sabr wal yaqin muy muñ gi doomu aadama war a muñ tàmbalee ko nag ci asabru ala taa muñ ci ndigal yi nga xamante ni borom subhanahu wa taala mu ngi la ko digal ci ay jaamu yàlla yoo war a def muñ gi nga war a muñ ngir di ko def loolu tamit feeñ na ci ci histoire bi te lii di muñ borom subhaanahu wa taala nee na wa bashiri sabirin yàlla dina bëggal ñi nga xamante ni ñooy way muñkat yi fii ci àdduna waaye yowmal xiyaam tamit lam leen fay xaaree mooy dugalee bi aljana yàlla ñu ci yàlla boole li ci feeña tamit ci ay duruus ak ay ibar mooy birrul waalidayn ismail nangu gi mu nangu ndigalu waajuram bi bàyyi ko ci boroomam subhaanahu wa taala loolu it di bind boo xamante ni kenn ku nekk war nga koo jël ci déggal say waajur bu dee ni lañ lay digal yàlla subhaanahu wa taala moom moo ko digal ba tey mu bokk ci duruus wala ibar yi muy qudratullahi allati tamnau sakina an tazwax ibrahim alayhi salaam paaka bi nga xamante ni moom la jë moom la Ibrahim jëloon war a rendi doom bi paaka boobu da ci jaamu yàlla yi la bokk yàlla bi joxoon ndigal ca safara siñ naroon dugal Ibrahim te yàlla wax na ko ni yaa naar kuuni baddan wa salaaman ak géej ga suñu borom subhanahu wa taala it tàggatoon ci Muusa alayhi salaam ba labalu ko lu dul dafa labal noonu ñi ko toppoon muy Firawna ak ñoom àndaloon ndigal googu noonu ak kattan googu la suñu borom subhaanahu wa taala tuxal ci paaka bi ba tax na keroog li Ibrahim di dawal lépp taxul mukk paaka bi ren di doomam jooju Ismaayil kon mu nekkoon ay bind yoo xamante ni li nga ciy jànge mooy képp ku nekk ak yàlla maanaam képp ku jël sa bopp jox ko yàlla yàlla moo lay teel sa lépp ba tax na amul lenn loo xamante ni war nga koo tiit war nga koy ragal ndax ya nga ànd ak li ñuy naan maayatullah yàlla mu ànd ak yow histoire boobu mbokk yi di histoire tabaski moo tax yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sunnal ko ci bépp xeet ba ci xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy tabaski nga gis ni kon barke googu noonu law na ci nangu gi Ibrahim nangoon ak njabootam ci ndigalu yàlla muñ lépp ba tax na yàlla def mu nekk sunna su sax ba ilaa yawmi diin al uduxiya nag buñ koy wax tabaski mooy ashaat awi dabihatu allati tusbaxu duxan yowma al iid taqarruban ila allahi taala ñun liñ ciy roy mooy tabaski de mooy gàtt bi ngay rey te ñu war koo xam nag xamit charte ya balaa muy gën di sës looloo tax ñu sof ko ci xutba bi al uduxiya mooy tabaski day nekk ci xar mu góor budul bi ñu tàpp mooy bi gën soo ko amul nag nga wàcc ci bi ñu tàpp soo weesoo xar bu ñu tàpp nga wàcc ci xar mu jigéen boo ci am ci yii nii tabaski na su weesoo xar yi nag nga wàcc ci bëy bu góor dem ci bëy bu jigéen boo weesoo bëy nga dem ci nag boo weesoo nag nga dem ci lii di gëléem yii mooy yi nga xamante ni ñoom lañ war a tabaskee mais nag boo ci mën a def na nga ko def taqarruban ila allahi taala na yàlla tax nga koy def yàlla séntuwu ci ñu naan diw de am kuy mu rëy moom la tabaskee bu ci loolu boo ci dugalee loolu rek ar riya dugg na ci ak ak suma moom aba tabaski moom amatoo ko jëmm xar maa fa nekk wala jëmm nag bu wala jëmm la nga bëgg a tabaskee waaye yéen a moom wax ko fas ko ba pare. kon li ngay fas ci li nga war a tabaskee da nga ko war a def te yàlla rek tax nga koy def du ànd ak it shirk boo demee ba koy def doo ko wax maanaam doo ko doo tëral li ngay li ngay rendi di tudd keneen ku dul yàlla keneen koo ci tudd ku dul yàlla. ñàkk nga kooku tabaski doo ci nam it ni tabaski suñu ko rendee dañoo soxla ci deret bi ngir lenn ci looy jëfandikoo ci mbirum xarfa xuufa lii lépp lu ci dugg ci wàllum tabaski sab tabaski yàqu na kon yii mooy yi nga xamante ni moom la ñu war a tabaskee te mu nekk it looy war a def ci bisu tabaski maanaam bisu fukkeel te tey jii nekk bis bu njëkk ci zulhijja boo koy wàññi ba ci bu ne arafa ba ci ëllëg sa moom mooy fukkeelu fan ba ndax arafa moom mooy juróomeelu fan bi ak ñeent ci zulhijja bu ko defee ca ëllëg sa la ñu sartal nag nga rendi yi ñu wax ni moom moo dagana tabaski bu dul da nga ko am ci bis boobu na nga ko tabaski ca bis ba ca topp mooy ayaamu tashriqi ñetti fan ya ca topp ca tabaski ba boo ci am ba tey gàtt mën nga koo tabaski bu ko rombee nag tabaski wàcc na la yàlla moo ko sartal nag ci alquranul karim boo demee ci suutu kawsar yàlla mun wax inna aataynaaka al kawsar fa salli li rabbika wanhar wanhar liñ ci jublu mooy li ci yàlla nam mooy mooy nga rendi sa xarub tabaski ci bisu fukkeel bi ci weeru tabaski bi ana ñan nag ñoo war a tabaski ñan la war alqadiru alayha alladi la yaxtaaju ila samaniha li amrin darurin fi l aam tabaski ki mu war mooy ki ko mën am njëgu xaru tabaski ba boo jëndee am xar boo noppee doo am benn jafe-jafe benn fitna du la ci topp maanaam nga am soxna su tawat wala wayjur wu tawat wala yow saalu boobu nga tawat waaye nga ne faw ma jënd am xarum tabaski lu ko mooy day ñaaw nga jëndee ko am xaru tabaski pare doon di dund yeneen fitna nee na boobu la tabaski wàcc bu yàgg sax ba nga ko mënulee ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla lu teg kenn lu mënul te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna diina yusrun walan yushaadda hada diin ahad illa galaba nee na diine islam gi diine gu jàppandal la dara dem nekku ci fitna képp ku ko diisal nag day mujjee teg sa kaw waaye diisul ki nga xamee nit ba tey mën na ko war na tabaski du aju ci ni dama am soxna wala awma soxna ki am soxna ak ki amul soxna yépp mën nañoo tabaski ki ko mënul nag wàcc na la te bu doon am nga yéene tabaski te tabaski roo amoo njëg gi waaye amul nga yéene bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tabaski woon ñaari xar mu ni bii ngir moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bi ci des képp ku nekk ci xeetam ku bëgg a tabaski te amoo yóbbaale na la kon kay yow bokk nga ci ñooñu am nga yoolu yoolu tabaski xaalis ba nga yor nag mu waroon laa jural fitna nga def ko ci loolu waroon laa jural fitna bu ko defee nga bañ a benn fitna inna diina yusrun la yoon saa salaam wax ana nag ban xar lañu war a tabaskee wala ban gàtt yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni arbaatun la yujzi'u fil adaahi ñeent ngi ni yoo xamante ni bu amee ci gàtt bi rek matatul tabaski bi ci njëkk muy al awraau al bayyinu awruha mooy xar moo xamante ni gisul gisul maanaam gisam dafa sëgg même bu dee benn bët bi moo gisul sax nee na xar moom matul tabaski mën na nag sëgg ba boo ko xoolee xam ni kii bët bi dafa sëgg waaye mën nay xoole fekk dafa sëggee yooyu noonu yëpp xëy na ñi gën a jege gétt yi xam nañ li may wax waaye bokk ci xar yi nga xamante ne mat naa tabaski wal maridatu yu bayyinu marabuha xar moo xamee nit dafa feebar ba loof xar moom noonu matul tabaski wal arjaau albayinu daluha xar moo xamit day soox ba boo ko xoolee xam ne xar mii day soox xar moomu matul tabaski wal ajfaau allati laa tunqi wala xar mi damm moo xam tànk yaa damm wala béjjën baa damm te damm damm ba wéragul xar moomu matul tabaski li dagan ci xaru tabaski nag mooy li dagan ci xarum tudd xar mi nga xamit nopp wa wala geen wa la ca dagg tollu nag un tiers xar boobu ba tey matul tabaski yii mooy yi nga xamante ni moo mat bu bu bu duggee ci gétt bu duggee ci gàtt bi nga war a rey rey rek gàtt googu matul tabaski bu dee am tudd tamit matul ab tudd kañ lay dagana def nag mooy buñ ne yow mu arafa tamit nii ci ëllëg sa ca lay dagan ci nga rendi sa xarum tabaski ginnaaw ca yoor yoor bala imam jiitee ba rey xaram ba pare mën ngaa dem nga rendi sa xar aqul ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi alqa'il wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ñuy wax ci alquran bi moom yàlla de mooy sàkk lu ko neex waaye mu gën a la ca ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom di seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom saxaabaam ak képp ku topp ci dugg sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu yàlla suñu borom si doon suufam si mbokk yi ñu ngi toll ci fukki fan ñu tedd fukki fan yu barkeel fukki fan yu bëri ngëneel yàlla suñu borom mooy sàkk lu ko neex waaye mu ngëneel ci ni mu sàkkee malaaka yi jël jibril alayhi salaam mu gën ci mboolemu malaaka yi noonu la borom bi subhanahu wa taala sàkkee mbindeef yépp jël yonante yi ñu gën ñeneen ñu dul ñoom waaye mu tànn ci yonante yi juróom tuddee leen ulul azmi min ar rusul noonu tamit la tànne ci juróom ñooñu ñaar muy alxalilayn muy ibrahim alayhi salaam ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tànn ci ñoom ñaar muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gën képp kuy teg sa dëgg ci kaw suuf noonu la borom bi subhanahu wa taala jëlee fukki fan yii ñu toll muy fukki fanu tabaski yi mu gën beneen bis bu dul bis yi ndax ngëneelam ci def ndax borom bi subhanahu wa taala moom moo ci waat baad aus billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim wal fajr wa layaalin ashr borom bi subhanahu wa taala suuratul fajri dafa waat ci fajar ba pare teg ca fukki fan muy fukki fan yii ñu toll yàlla suñu borom moom moo am sañ-sañu waat ci li mu bind waaye mbindeef amul sañ-sañu waat ci lu yàlla bind mbindeef buy waat ci yàlla la war a waat fa man kaana xaalifan falyaxlif billah aw li yasmut loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku dem bay waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi fukki fan yi nag li ci nekk say ngëneel mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na afdalu al ayaami inda allahi ayaamul ashr fan yi gën ci fan yi àdduna yi mu ne mooy fukki fan yi nga xamante ni mooy fukki fan tabaski yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ma min ayaamin al amalu saalix fihinna ahabu ila taala min ashri dil hijja nee na jëf yi ngay jëf ci sa dund yépp ci bis yi muy jëf yu baax yu yàlla gërëm nee na fu ko yàlla gën a soxlaa nag mooy ci fukki fan yi nii ci la ëppay ngëneel muy lim mu ni bi ci jëkk mooy sadaqatun ala alfuqaraai walmasakin sarax bi ngay génne ci jamono ji nga toll nii jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñooy way ñàkk yi nee na mënoo defal yàlla lu ko gënal ci bis yi nii lu dul sarax yi di jox ñi nga xamante ni ñooy masakin yi saraxe mbokk yi dafay fànq ay musiba ak ay balaa waaye tamit saraxe yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ëllëg yawmal qiyaamati fa ker dul am yàlla ñi muy dugal ci ker ga bokk na ca ki nga xamante ni dafa saraxe te ba muy saraxe mu nëbbu ko ba loxo ndeyjoor ba la mu génnee càmmoñ ba xamu ko maanaam nga def ko te yàlla tax kon ngëneelu saraxe mu ngoog waaye yonente sallallahu alayhi wasallam nee na rawatina ci fan yi nga toll nii muy fukki fan yi tabaski yi ba tey it bokk na ci ngëneel ci bis bi ci bis yi ñu nekk mooy birrul waalidayni ngay def ak njekk jëmale ko ci say wayjur nga def ay njekk yu baax yu rafet di rafetal jëmale say wayjur ndax yàlla bu ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iya wa bil waalidayni ihsaanan la ci teg ginnaaw bi mu diglee ñu jaamu ko te bañ a jaamu kenn ku dul moom da ko digle ñu rafetal jëmale suñuy waajur yonent saa salaam wax ni rida allahi fi ridal walidain wa suxta allah fi suxtal walidain mu ni merug yàlla de yàlla mu ngi xool say waajur ndax mer nañ ci yow bu say waajur meree ci yow yàlla nee na soxlaatul say jëf waaye bu fekkee ne say waajur gërëm nañ la yàlla yonent saa salaam nee na yàlla dina gërëm say mbir mu bokk ba tey ci jëf yu ñu gërëm yu ñu war a def ci fukki fan yi nii sillatu rahim mooy jokk mbokk jokk mbokk jamono ji xat na pour fu nekk nga mën faa dem waaye bu mu jokkoo yi bari nañ fu sa tànk mënatul egg léegi mën nga jël léegi sa téléphone yebal ko mu daldi dem nga nemmeeku seet ki nga xamante ni amaana mbokk la ci yow soit muy mbokk deret wala mbokk pas-pas boo war a nemmeeku te lépp rek ay yiw moo ci am rawatina ci fukki fan yu toll wasalaatu ak julli yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ju'ilat qurratu ayni fi salah nee na saay bu bëggee moom alayhi salaatu wasalaam li muy wonee mbégtam mooy day dem julli ji waaye su nekkee tamit ci njaaxle la muy dellu ngir tiisu fa ak njaaxleem ngir dëfal boppam mooy ci julli julli tamit la ca nekk tey ngëneel yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na awalu maa yuxaasu bihi al-abdu yawma al-qiyaama as-salaa liñ lay njëkk a xisaabal yawma al-qiyaamati moom mooy julli te as-salaa bu fekkente ni yaa ngi koy def comme na nga ko war a defee yàlla neen inna as-salaa tanha anil fahshaa'i wal munkar sooy julli jarul kenn di la juge naan sa julli gi nangu na wala nangul na nga xool say jëf yow ndax say jëf dëppoo nag li yàlla digle wala dëppoowul ak moom saay buy dëppoo ak moom rek jàppal ne say julli ñu ngi koy nangu waaye saay booy julli di gën a zahire rek seetaal sa sa sa julli wasiyaamu digle nañ tamit ci fukki fan yi ku ko mën a woor na nga ko woor ndax yonent saa salaam jëlee nañ ci yenn ci ay soxnaam ñu ne yonent saa salaam daana woor bisu tey bii maanaam premier jour ci zilhijja ba ci yow mu arafat da koy woor ci ëllëg sa di tabaski bu ko mënul it alal aqal bis bu nga xamante ni moom mënoo koo ñàkk bañ a woor ngir la ca nekk cay ngëneel soo ko xamee mooy bis yow mun arafa ndax yoon saa salaam nee na képp ku woor yow mun arafa dinañ la jéggal sa bàkkaar yu ndaw yi nga defoon ci at wee weesu jéggal la tamit say bàkkaaru at mi nga jëm yi nekk sa kanam ba mu des nag al mubiqaat mubiqaat moom mooy bàkkaar yu rëy yi nga xamante ni day màbbu jëf kon koor a ngi noonu te yoon saa salaam wax na ni ki nga xam ne dafa woor ba heure ndogu jot mu toog ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala lépp lu mu fa ñaan ci lu baax lu lu yemen ci dundam yàlla dina ko defaral kon boo xoolee ci bis tey bii ak waxtu yu tedd yi fi nekk yépp ay barke la ci suñu dund barke sa dund mooy ñu jox la waxtu wu néew boo xam looy ci li nga ciy def lu lay jural yiw at yu bëri yu nekk sa kanam la loolu mooy barke ci jëf yi nga war a jëf te yàlla rek tax bokk na ba tey ci li ñu war a def ci ku ko man ci fukki fan yii nii mooy alxajj wal umra mooy nga dem aji makka wala nga dem pour umra ji suñu mbokki ujaaj ji dem ci baytullahi alxaram yàlla yàlla nangul leen yàlla nangul leen seen xaj dellu si leen ci jàmm waaye bokk na ci yi gën a tedd yi ñuy def ci jamono jii nii moom mooy alxajj wal umra yii ne la yonente bi salaa salaam wax ni mooy li gënal yàlla nga def ko ci fukki fan yi bi mu waxee ba daaneel saxaaba dañ ne ko wala jihaad fi sabilillah yooyu yii nii moo gën sax jihaad ci ci yoonu yàlla ndax jàppoon nañ ni li gën a rëy nga koy def mooy jël sa jaasi dem di xeex ci yoonu yàlla ngir samp islam bi mu ne leen wala jihaad fi sabilillah ba mu des nag koo xamante ne nee na dafa génn ak alalam lépp te bi te dara dellu siwul nee na xanaa kooku kon nga xam ne kon jëf yooyu noonu jëf yu rëy la dafay doy rek ñu ne jëf yu rëy la ndax yàlla suñu borom moo ci waat day doy tamit ñu ne ay jëf yu rëy la mooy maraatibu diini yëpp dafa dajaloo ci fukki fan ci fukki fan yi julli mën ko ci def du la wàcc aj jamono ji boo ajul munoo ajaat ndax al aj al xaju arafa te arafa benn fan la ci at mi bu la xasee ba rëcc ci moom beneen at rek bokk na ci ponk yi nga xam ne yow mi aji ji boo fa demul ci yow mu arafa sa aj nanguwul kon yàlla dafa jël maraatibu diini yëpp muy ponk islam juróom yëpp mu ngi ci fukki fan yi awaidul iman arkaanul iman yëpp mu ngi ci fukki fan yi ba ci al ihsaan rafetal lépp mu ngi ci fukki fan yi kon fukki fan yu barkeel la yoo xamante ni ëpp na ab jullit di ko sàggane bokk na ba tey ci liñ ko war a màggalee liñ ko war a dundalee mooy di tudd yàlla subhanahu wa taala yàlla moo ne wa yazkurullaha fi ayaamin maalumaat da ngeen tudd yàlla ci bis yi nga xam ne bis ñu lim la bis yu ràññeeku muy fukki fan yi nii ay fi ashri dil hijja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ngi laaya biir mu ni aksiru fihinna min at-tahlil dee leen ci baril lu ngeen di tudd yàlla kon ni ngay defee lu baax ci jamono ji ñu la koy fulal noonu ngay waxee safaanit ñu la koy fulal kon jamonoy fegu la boo mënul defit moom alal aqal gën ngaa néew sa làmmiñ nga toog yor sa kurus di tudd yàlla at-tahlil mu ni wa takbir wala nga tudd yàlla allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar loolu yomb la ci tudd ci làmmiñ waaye lu diis la ci misaan ci ëllëg yàlla subhanahu wa taala ba la koy fay wa tahmid ak di sant yàlla ndax am na ñoo xamante ne fekkewuñ jamono ji te fekkoon nañ ko daaw yow mi nga fekk nag bokk na ci li ngay sante yàlla mooy ngay def ci sa alal wala ngay def ci sa doole mooy di julli wala ngay woor wala ngay dimbale nit ñi boo ko mënul ngay tudd yàlla saa su ne rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qum ila salati yarhamukumullah